actualité bu ndaw ci côté euh, ki nga xamante ne mooy kaaw Dieyna Baldé ak Biril Fayfo actuellement mu nekk problème boo xamante ne tey lu difficile la si problème mu jigéen ak góor tey loo gisee loo aju ak boo doon conseil tamit xale bi nga xamante mooy Dieyna Baldé yan conseil nga koy jox Dieyna Baldé man <laughs> bu Diop Isaac mooy bu Isaac bi waaw moom la amat problème moom ak keneen encore ko amoon na problème ak ah non kon Diop Diop Isaac yàlla mi koy fay lii kon kon yàllaay àtte sama xaal bu gàtt yàllaay àtte waaw amoon na problème Diop nag man xaw ma lan la mais doomam man Diop Iseg xaw ma xam mais doomam bu jigéen bi. waaw Abiba. Abiba mhm. man moom dama koo bëggaa bëgg du nopp de dama ko daf ma neex. dëgg la ma neex loolu day am nit ko da gis nit da lay neex. mais Abiba moomu. Mhm. baayam. Mhm. dama yaakaar ne day xëy na peut-être war naa mën a jombale leneen boppam waaye bu fekkee kii egg nañu tekk ci deram. ah lii bu amul woon rek ma gëm ni xale bi li mu wax am na. dëgg la nga yàlla léegi. Ah, day sol tripé <laughs> lay sol sol ay dàll yu baax ak mm-hmm. ay ay costume mm-hmm. da ngay def léegi mu doon la léegi dëgg la waaw mais naa Baldé moo amul lu ma koy conseil ma mm-hmm. na koy waajuram yi nekk Kolda ñëw récupérer ko yóbbu seen doom mais ni muy fonctionner nii topp célébrité yi bu teyee mokkee am doom bu subaa mokkee am rapport bu a subaa jëlal na kii vidéo Dieyna Baldé xale la te yàlla na ma yàlla baal waaye daal man li ma jot a gis su ñuy jóge ci côté boobu yëpp seen école boobu. man daal gisaguma ci ko jub daal. am na nag xëy na mais tegaguma ko bët. dëgg la dégguma ci rumeur kan. Mhm. waaw doy na waar daal. Dieyna Baldé Dieyna Baldé de man de vraiment vraiment vraiment yal na ko yàlla mhm. ko yàlla taxawu waaye da xam ne day. Mhm. ah moom gën a yal na ma yàlla a dëgër der. Eh, non ma ba dégg naa ne magam bu góor. interposé wu na ci. te magam bu góor moo waroon a jël yar te bu góor bi la war a ooy yeddal na la hee xoolal fi nga jóge fi nu bokk mm-hmm. ak xoolal sama ndey sama bay sa yii arrêté ka mm-hmm. moom moo lay wax ni ngay doxalee ni nga koy defalee lii man doo comprendre daal ay waajurum daal la war a ooy yedd leen wax ak ñoom mm-hmm. ñu wax ak moom mais nii nii ni nekk ndakaaru jaay gi jóge ba dëkk ba daa xaw ma ñëw nekk ndakaaru jaay gi di topp ay yow jóg iseg dem ni ma déggee histoire bi jëlee fee di la jàppale di jaamu yàlla ci yaw mhm. fayoo ko dara lu di ko yóbbu pëlis ak wàccee. Mhm. mu motanam at. dara dalu la. Mhm. nañ naan Jóob Isaka waaye lii ci am nii. yàlla day àtte. te ñëpp ñëpp nañu yow jarul sax tribunal ñëpp xam nañu Jóob Isaka kon jéenaa moo ko moo ko tuumaal tooñ ko rek. ah man boog ci sama xalaat bu gàtt. waaw bu ma wax dara nag ndax man moom damay tontu. waaw <laughs> da may wan kenn baat <laughs> waaw man moom. Eh. am naa jot te sawar naa ndax Sénégal fi boo amulee jot na toog naan garaawul ak yàlla ak yonante bi. Mhm. ñu jàppale def la c' la tontu ah, waaw muy moom muy magam muy <laughs> rakkam muy ay mbokkam rek. man moom dama dul wannal kenn baat.